lim mhm. la xamal itam doto ko meuna fatte da muju dongoy tan ci nekkub seigne modou Sali bëgg di jang ci jang seigne touba mhm. waye and ak lo leppit mu bok ci dongoy seigne Mor yi di dem tol ni ñëpp mhm. di liggey ni ñëpp ba mbirum dem tol momu seigne Masamba Diop Sama dam ab eleeram ci mom boba seen baangi nek ndaxte boba day gis ni seigne billahi kitaba Mustafa du taqali ko kaamil bi te kaamil alxuraan nga bokk ko sa poqtaan yi ba nopp bëgg di bay te dara mënta tax mu teg ko ci suuf du ko aj ci kaw garab du ko bokk ci teg ci suuf kaamil bi moom da koy bokk waxtu wu nekk du tàggoog alxuraan ba noppi bëgg di bay sëñ Masamba Diop xam ne kii am na lu nekk ci moom mu ne ko war wàcce naa la ci loolu suñ la sasatee naa boole saw sas ak saw sas bay ko waaye loolu lépp teew sëñ Touba nekk ci loolu ba bàyyam am juróom benn fukki at ak menn at la sëñ Mor Sali dund ci bopp atum sasin ci jeex atum ama sasin junni ak ñett téeméer ci la génn adduna aw muharram mooy tamxarit mhm. bi mu tëddee ba xam ne yëg na ni mi ngi bëgg a dem mhm. te kuy bëgg faatu kat yow da nga xam ne dangay faatu ndax digib dugub joo tiim mhm. dugub da day yooxu day day yooxu ngir ragal dee xam ne yow mii da ngay da war a faatu sëñ woolu sëriñ Touba ba mu dikk ci néeg boobu Ahmadou rek lañ koy wooyee. Mhm. waaye boo soxna Anta Ndiaye Mbàkke jigéen ju baax la dafa am ñaari baat ci alxuraan yu ma ta xàmmee. Mhm. taxassus ak tajassus. Mhm. ishabu wa taxassasu fi yusufa wa ixwatihi bokkut ak wala tajassasu wala yaxtab baadukum baadan taxassus mooy jigéen ju farlu. di bàyyi xel sa borom kër. di ko nemmiku taxassus nag mooy ku yëddu ak a déglu. ak a dégg ndey soxna Anta Ndiaye di bàyyi xel sëriñ bi mu woolu sëñ Touba ba mu dikkee mu ne ko damaa bëgg nga wàcceel ma ab kaamil ci sa làmmiñ bu la ci kenn rax sëñ bi def ko mu ne ko damaa bëgg nga jàngal ma nangam ak nangam ak nangam sëñ bi def ko mu ne ko dama laa bëgg a dénk mu ne ko bismillah mu ne ko yég naa ni waaj naa ba jëkk damay dem damaa bëgg fee ma jëm tey muy barsàq mësuma faa dem té awma fa jenn yaakar ju gëna dëgër jur gi ma la jur ngay sama doom ma bàyyi la adduna rikk ahmadou fee jëm bu fa dajé dara lu ma naqari rik ahmadou feema jëm bu fa dajé dara lu may fitnaal mu ne ko ah, ah, ah, ak lan mu ne ko su ma fi bàyyi nañ ma yobbu déqale ndax boba ñaari at képp la am Mbàkke Kajoor japp ni dëkk bi day gënt mu ne ko ak lan mu ne ko su ma fi bàyyi sama njabot gi dénk na la leen ñinga mag ak ñinga la mag ñëpp tek na ko seen loxo soxna Anta Ndiaye Mbacke di dégg sëñ Tuubaa ne ko bismillah foofu yi nga xam ne fa nga jëm tey fa nga jëm te amoo fa jenn yaakaar ju gën a dëgg sama jëm ji dinaa la def ni mbott mu tëbi ci déeg daanu ci géej loxo sii ma teg sa kaw boo ko noppee dinaa la teg ci loxoy muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa bàyyam la jëkka war loolu am ramu bàyyam gëm ko ajjana waaw ni ko loxo sii ma teg sa kaw soo ko noppee dinaa la teg ci loxoy rasulullahi sëñ Tuubaa da ko bind kat addu xultu nafsi وتدميها أهلي في جيب أفضل الورازي الفدلي نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديه رابط ما شاء الله بايم جم كلول منكو لا توب موي ديقلي غوغي فاناي فناني تاي دا خمغ ني ديقلي كان سيد بسيو سخ دا تك سي وسر ني ني كانت اهلها في قديم زمان بروت صالحين سيد ديقلي بدو سخنا ان ميكو سنج مسام فاخو جيمي كوجور نجي اسا كوجور Euh, moom Samba Fakho mi ko jur. Euh, euh, sëñ Kokki Matar ko jur. Mhm. mu ne ko fa ngay fanaani mhm. mu ne ko njaboot gii nga teg ci sama loxo itam. Mhm. dénk ma leen dinaa leen defal dinaa def ci ñoom lu nekkul ci aw jàng. dinaa leen defal lu nekkul ci aw jàng. am na ñu waxe beneen formule waaye sëñ Touba waxewul woon noonu. sëñ Touba musa saxal lu gën alxuraan. kon bu kenn wax ni dina leen defal lu gën alxuraan lu gën alxuraan amul lu gën aw jang ndax jang du defal nit jang sampul mbir bu jang doon defal nit ko ab docteur du tok cigarette ba muy nan sangara <laughs> jang du defal nit lu nek lu gënu jang la wax lu newul ci jang mhm. li ci sante mbacke newul ci jang sante ngi wo xamni du yanu du yene seug bi na mbacke jappal yene ma do ko deg bob addunay tukki seug bi na mbacke jappal yene ma do ko deg mukk ci aduna sante wu ne ngi ci barabi caaxaan yeeg barabi moy kay yalla bam de sante seigne touba wi dégg nga nga gis koo xam ne kii day yor sant sant sëñ tubaab yi ba noppi def manifeste ak doy di wala ak mooy yàlla nga xam ni sant la woo xam ne wii loola ni wul ci aw jàng bi sëñ moor nelawee sëñ tubaa doonu daara ja njàng may wéy fa baqee cheikhu fil wazifati sannatan wa ziyaadatan sëñ tubaa continué njàng ma mm-hmm. ak njàngale ma daara ji gën dolliku ba am bis nag sëñ tubaa tàmbalee wane beneen formule ak beneen aspect di wax ni lii de baax na loolu waaye am na lu ko gën ndax fexe ba fexe ba bu ñuy déngee ko de bokk seen déy laa ko gën ba am bis nag sëñ Touba daal di wane boppam aw tamxarit aw diggi aw gàmmo rakki gàmmo rakkaati gàmmo maamu koor ndeyu koor baralu koor sëñ Touba xëy woote ñëpp ña fa doon jàng si mun bis ni ki tey ku fi jàng taxoon a jóg andi woon laxasal wuti ku la jàngali mhm. képp koo xam ne kii da ngaa bëgg yegg ci yàlla dikkal mu dem sunu borom nee na naa leen wax ni maay buntub yàlla bi ku ma teggi doo wéy maa leen man maa woon seytaane làqu leen ci man ka ma rawal leen ku bëgg mucc àdduna ak alaaxira tabbil ci sama biir xam nga amara ni rabbi la sëriñ tubaa wax yàllaa ma digal xam nga daa yéen illaahi yomb na waaye bi isnihi moo jafe mhm. sëriñ tubaa dafa بأن أصرها بأني ملاذ وحما ومفزع فمن أراد الخير في كلتي الدارين فليلس بي يلا نينا نال الخبل ماي روت واي بي ماي جلو كاي بي ماي وير واي بي كو بغي موتي ادنا الاخره كاي تابيت سان بير كاي يبلو الحمد لله دادي ووتي تي بونتو فائده لكل مستفيد من باب التربيه تي بونتو جاينتي اك جندتي اك يبلو بيم واخا لورو نيت ني دالدي تامبالي ام خيل يار waye ñu gis ni ba ko xamé bisu tey jii mus leen wax ay tiaxan mo leen gëna ragal yàlla fouf gën leen xam yàlla fouf ëpp leen xam-xam fouf gën leen sam fouf gën leen a maandu fuuf kon nak bu woté li ñee ñoom dañoo am na ñooñ fëgg seen dal dàll dem am ñoo wax ni waxam ji dañ ko jàpp yedd ñoo xamni desandi nañ fa diko bàyyi xel lolé bam ko waxé rek ñuy dem ba ca ñaar fukki fani koor ya cheikh Seex Ibra Fall daal di ñëw macha allah la ilaha illallah إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله أدي شيخ إبراهيم فالله ما شاء الله جرجف إن شاء الله سيدي إبراهيم جون واو سيدي إبراهيم سيدي توبا ديفي ديكلاراسيون سونال بوبو ñaar fukki fan ci koor muy ñaar fukki fan ci koor ama assasine yàlla atte na keroog ba mu Cheikh Adama Gueye moo jëkk joxe boppam. borom baabu. Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ. Mm-hmm. joxe boppam. Mm-hmm. jazaaka. sëñ Massamba Diop Samb. Mm-hmm. joxe boppam. incha sëriñ Ndam Abdourahmane Lo. joxe boppam. Cheikh Amadou Ndoumé joxe boppam. sëñ Daaru Assane Ndiaye. joxe boppam. sëñ Madou Gueye Jëmooy joxe boppam. sëriñ euh, ah sëñ Modou Fadiama Niang ñoom sëñ Sirilo mag ñoo ñii ñëw di jébbulu mhm. ñee ñoom dem mhm. bañ demee ba ca ñaar fukki fan ya ci la Cheikh Ibra Fall ñëw bi mu dikkee Cheikh Mouhamadul Bachir ba tey mooy wax nee na sëriñ Basiru sëñ Basiru Mbàkke moo ni mhm. Cheikh Ibra Fall moo ma ni محمد البشير ماني كو مباك منو كاي ما نيتلي لا نما جوخي سا باي سما بوب لما جيك واخانتي اك سا باي كيرو بومو جيكي جانو موم تي مباك كاجور الله اكبر نانا سما خول سيد غوي خامني غيناو كي مو جيبلو وون تي كي لا جيبلو وون نيتلي تي غيمنيو بوروم لا داق شيخ محمد البشير نانا شيخ بفال موكو ني حكى علي مرده الكبير شيخ ابراهيم فال وهو من فسان تلو سيقي قال لي أن أول ما حققت عليه الشيخ رضي الله عنه من النهج والبيت بيعتي قلت له إني لم يخرجني من بيتي إلى طلب الشيخ الموسلين أجد في عليه نور حق تندفه أمامه ظلمات الخلق وتنجلي به آية الحق لو لم أجد أحد منه هذه صفته إلى قبره لبلغني صدق نيتي فيه أملي وإني أبايعك على أن لا حصى من الدنيا بشعرة إنما هم الله ودار الآخرة. شيخ إبراهيم Fall nee na. sëñ Bassirou keroog bu ma jëkkee bàyyi koo Mbàkke bàyyi koo tey ba Dakar ñëw Mbàkke Kajoor mhm. di topp xetuk sa baay wët naa ko ci borom téere yi wët naa ko ci rijaalul xëybu yi dégg naa tur wi fu ma sa dégg tur wi mbaa sant wi dem naa fa ba keroog ba ma déggee ku ñu wax Ahmadou Ba waaye mu sant sil dëkk Taïba ba ma fa demee gis sëñ Taïba lu ma ko laaj ci yàlla bala ma ko tontu ubbi ay téere di ko ci seet jox ma lawal wala saani léeg-léeg mun a to léeg-léeg mun a xiila wala xawlaani wala taraddadun wala xilaafun <laughs> nee na ma bàyyi koo fa bëgg a dem ci réew yi penku yi jàpp ni kii ma yàlla woon doomu daa feeñ ci naar yi wala mu feeñ ci réew yi ijaas yi ba ma teg sama njëb bëgg a dem ca suba sa waaw la ma sëñ tubaa lugat lonk ma yabal Cheikh Adama Gueye ak Cheikh Makhtar Sow yónni woon leen tey ba ma leen gisee rek la ma xetu xet gi may xeeñ xeeñ xetu suñ tubaab di xeeñ ci ñoom ma toppe leen Tayba ba ba Mbàkke Kajoor ba ñu dikkee melokaan wi Seex Ibra mel tax daal xamuñu ku mu doon waaye ju bàyyi ko fi benn barab nuyu ak sëñ bi ba noppi ni ko am na gan gu ñu toppe ba di fóon suñu yére yi ak a mar sunu yaram ni dalaa bëgg a gis ñu ne ko sëñ ni ko ni ko nee nañ ko mu yegsi Seex Ibra jóge fa mu toogoon waaxu wuti fi fekk sëñ tubaa di jëblu si ci moom ba mu doxee ba jàkkaarloo jëmmi sëñ tubaa ji yegg suuf la fañ seen ñaari maari jiy jàkkaarloo Seex Ibra Faal di raam keroog lañ ma sa gis loolu sëñ tubaa di jëmm su tuuti Sidi Birahim ñuul kukk keroog la loolu njëkk am loxoom yaa ngi sëq lipp ak kawar mm-hmm. bëtam yaa ngi xóot xong coy mm-hmm. tuñal yi jib mu kaalawu kaal ak sa móor Seex Ibra Faal di ndaamal màcc doon ndawal ñaar fukki at ak juróom-ñett bari doole lool juddu lool di as gor di ko ñu xam di mbokkum ñëpp. jàng ko bind alxuraan. Hmm. taalif alxuraan taalif ay téere ci arab di raam ak xam-xamam boobee ak juddoom boobee loolu moom lañ wax ci yaaram al istislaam wuti boroom tubaab nit ñëpp ni yàcc di ko xool ndax xamuñu lii xamuñu bii image muy raam wuti borom tuba ba yegsi jox ko ñaari loxo sëñ tuba ngëpp ko. ak téngam lu tuuti loolee Cheikh Ibrahima Fall foofu jëm ba këpp ko ci derub sëñ Touba ba mu yàgg loolu mu siggi sëñ Touba ne ko ba jàmm nga am ndongo nga bàyyi mu ne ko tey balaa bàyyi ko sëñ Touba ne ko ana lu tax mu ne ko bëgg a yegg ci sama borom sëñ Touba nee na keroog su ma bi damay sar xol bi ñëkk déebu sama baat léegi ñoo xam ne man mii maa yor njariñ sëñ ko demal nga jàng te julli ji te sa borom demal nga jàng ba mu ko ne lu la tax a jóg mu ne ko bëgg a yegg ci yàlla sama borom mu nu ko demal nga jàngi te julli ji te woori te toppi sa borom demal nga jàngi te julli ji te woori te toppi sa ñëpp ngi leen di dégg hmm. Hmm. Sidi waaw sëñ daal di Seex Ibra Faal daal di ñaari bëti woomam nag daal di ba jàkkaarloog Sëriñ Touba ni ko inni lam yuxri ñi min bayti ilaa talabu cheikhin wasilin hmm. ni ko nag damaa bëgg a yegg ci yàlla way romb na borom kaggu ak seeni téré mhm. di wut ko xamni ki boko bu ma yu génn ci sama yaram ak sama bakkaar ay andi génn te ma yalla ni naa ko seet ba gis ko jibbal ko sama bopp ku ko liggéeyal tàggoog bakkar mucc ci sawra tabbi aljana te lolu mënees ko am ci jang ak gor woor ndax qila ak qawlani ak taraddudun ak khilafun des na ko fekk ci borom téré way di goru yalla mhm. te ki ma yalla ni ko ki ma yalla ni ko ba gis ko jox ko sama bopp su ma fekkoon mu faatu awma ci moom lu bàmmeelam itam la ma bëgg lépp danaa ko am ca bàmmeelu kookee ma yàlla law lam ajru min ahadi ahadun asaarihi ilaa qabruhu la balaxani sidqu niyati fii amali Sidi Birahim tey sëñ Tuubaa dellu ko ni nga loo bëgg mu ko yegg ci yàlla laa bëgg mu ne ko loo àndal mu ne ko sama ngàng mu ne ko jébb loola koy may da ngay joxe sa bopp luñ la digal nga def ko te doone lu tax luñ la tere nga bàyyi ko te doone lu tax soobu ci yoon yàlla te doo geesu da ngay nangoo ñàkk sa ndey ñàkk sa baay ñàkk sa bopp te adduna mii duma la fi jox lu tolloog sagaru ba sang wooy toog doo fi am jabar doo fi am doom ndax nangu nga Cheikh Fall di ko nangu naa lii ma la wax sëriñ Basiru ko wax dama koo nettali sëñ Tuubaa ni ko law lam ajidu ahadu minhu wa azarahu asarihi sallallahu alayhi wa sallam ila munzaru hazihi nujumi wa samaa ilati taxaqaqtu annahu sallallahu alayhi wa sallam kaana yanzuru لا وثقت بأن نيتي فيه ومحبتي لكفيلة عندي بقضاء الحاج واللص بيد أنسابي خذ الحسنى إني ابايك على الامتثال والاجتناب وترخيط الهمة إلى الله تبارك وتعالى ولا ترجو مني في ذراع عريشا يظلك يطلبك فضلا أنا أهل وداري نيكو من نك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم غا xamni سما ديغنتك موم جوني ات at نياري تيمير témèr جوروم juroom ñaar fukkat في ديغنتك fi بام kérok اك بام فيغني سما ديكون suma dikkoon من احمد الخديم ahmadul في القران fi في السنه fekkuma fi kuy def lu baax mbaa kuy bàyyi lu bon waaye mu wóor ma ni asamaan si mës naa tim njool màkka mës naa xool biddiw yi mës naa xool jant bii danaa tegtaloo ci yooyu ba tudd xaadimu Mustafa sallallahu alayhi wasallam kon yow mii ni soo fekkoon sama bàmmeel am ni nga bëgg nangul naa la sa jaayante waaye ci kaw ñetti sar mu ni ko yan mu ni ko alal limtisaali lu ma la digal da nga koy def wa liccinaa bi lu ma la tere da nga koy bàyyi wa tarxiyatil himmati illahi tabaaraka wa taala te sa yitte yëpp na yàlla xamoo ni Cheikh Ibra Cheikh Ibra du morom. déedéet déedéet. ndax nag. Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall. Abou Rijal lañu koy wooyee. damay ñi jëm foofa lay xëyee ndax isa jéey faati penda damel ma samba yaaya faal Cheikh Ibra bàyyi lal faal maami moo tax murit ak militaire ak malaaka ñoo murit ak militaire ak malaakañooyam xanaa xamoo ni malaaka laa yaxsoona laaha maa amaro mooy fa aloona maa yumaroon buñ ko mm. reyloo mu rey du ci am bàkkaar ndigal rek buñ ko tàlloo dëkk mu taal dëkk ba te du am bàkkaar buñ ko alagloo aw nit mu alag leen du am bàkkaar militaire du wadd boppam du dundal boppam du fay paas ci saxaar te ku mu rey da ngay perdi Cheikh Ibra Fall sëñ Tuubaa ni ko ala ti saali wali ci naaj boo tax yëpp na yàlla moo tax Cheikh Ibra yaar rek la fi fekk ci àdduna hmm. jëf ak wax lu ci ne jël na la ca gën jëf ak wax waaw jëf ba jëf jeex liggéeyal sëñ Bamba ci gën wax wax jeex laa ilaaha illaa ci gën ce yaar rek la fi fekk jëf ak wax lu ci ne jël na la ca gën jëf ba jëf jeex liggéeyal sëñ Bamba ci gën fa kullu man xaddama nii aw zaara fa najjihi wax fir lahu aw zaara hmm. wax di xamaa ijëla si na daamoo fii xidmati wa hablahum maaraamoo hmm. sëñ Tubaa nee na ñi nga xam ne liggéeyal maa leen yóbbu àjjana ñoom ca a latin ba la ñuy dëkk seeni kër yi àjjana du fegg ca digg àjjana la ñuy dëkk mhm. wax ba lu lu waay di wax ci adduna laa ilaha illallah moo ci gën mu féete woo laa ilaha illallah mu ne ko nag wala tarjumi ni fi dunya arisan yazilluka yatlubuka fadlan an ahli waraari adduna mii nag yow Iba Fall bu ci yaagaar sagaru ba sag moo fi am doo fi am mbaar mu la tiim doo fi am jabar doo fi am doom nangu nga mu ne ko nangu naa bëgguma ci yooyu dara Seex Basiru Mbàkke moo ni maa laaj sëñ Tuuba sa barke bi ak sa mbooloo mi ak nii la yàlla def koo ne barke bi rofaan laa la indi nanga ko fukki loxoom foo ko jëlee mu ne ko ah doom faxasiti oom yaa ko sukkale woon keroog ba may raam la waaye loo ma sa liggéey ma nga bar sàq di ma nekk waaye ku raam nag am faxasiti oom keroog ba may raam ñëpp di ma xool sama faxasiti oom mooy lii nga gis sama ginnaaw waaye loo ma sa liggéey ma nga yomal xel di ma nekk diir bu gàtt rek mag ñëpp daal di koy bëgg nag di xool doxinam wa di ko ca roy mu nekk jëmm joo xam ne ji jëmm ju légendaire la jëmm ju exemplaire la ca na mu bindoo ca na mu mel ca xorom sa ca moom bayra ba ca moom juddu ba ca moom xam nga Cheikh Ibra loolu sax waxtaanu boppam la waaye nag yàlla waaw waaw waaw léegi nag sëñ bi nag xam nga xam nga sëñ bi ñëw nga sosu yoon wi mu tàmbali di defar sañc ay dëkk alaaj Pape An hmm. waaye lu jiitu muy dem ci tukki bii nga xam ni moo libéré senegal hmm. moo may moo moo tax jàkk yi bare jumaa yi nit ñi am liberté moo wax ni tekk naa jéggi xat faaka tab la xat baa sa fadala sëñ Boussora defar gi sëñ Tuubaa doon defar nit ak taqoo gi mu doon taqoo nit ba defal ko loo xam ne du àggee yilif ay nijaayam yilif ay bokkam ndax sëñ bi ay nijaayam yi ay taalibeem lañ ay rakkami taalibeem lañ ay magam ay taalibeem lañ loolu moom rekk ko am kon nag dañoo bëgg nga dikk ci lu jiitu muy dem ci géej gi sanc nay dëkk defar na ay nit seexal na ay nit ñu ami mbooloo mu soog dem nag tukki ëndaale loo xam ni du jeex ba ilaa yawmi diin te ëllëg lay gën a bari bu sa juróom-ñaar fukk ak juróom la fi am juróom-ñaar fukk ak ñaar fukk ak ñaar fukk juróom la soixante quinze ans la fi sëñ Touba am soixante ñetti ñaar fukk ak juróom la nee na sama ñaar fukk ak juróom yu jëkk lu fi waaye am ay teggi na la ko may sëñ Touba ko xam nooy waxee moom falu waxin waaw ñaar fukk ak juróom yi ca des lu fa waaye am sa ngànga la ko may ñaar fukki at juróom yu mu yi nag muy diggante jolof ak njaareem ku ñëw ci moom ba mu gërëm la dalay wax ni la wëral adduna mbër moo fi ragal moo fi mas a ragal demal dëkk ko dikk wax ma ko ma daanal la ko jox la bàkk yi fu la neex jox la ndam li fu la neex bàkkoo ji sëñ Tuubaa moo wax loolu mu ni ñaar fukki at ak yu mu yi kum fi gërëm dalay wax ni la wëral adduna mbër moo fi mas a ragal rek demal dëkk ko ni ma diw mii musuma koo ñi ma waaye dëkk naa ko مدانا لكو ماي لا ندم لي فلا نيخ فكم جبرت كثيرا كم ازلت ازن وكم فديت اسرا صار يفديك وكم هدوم واسرار وكم حكم بس استحال مر صار يفديك دماني سيرن بي ديغت بي فيني اك بي لم في ام اك لي مو في ديف بودو نيت دوكو مان خام نان لو نيت ورا مان اك لو نيت ورتا مان دنج كو لاج نيكو دوما نيت دغ لا سيرن موسى كان نكو دو نيت doo jinne te doo malaaka doo kaayinaatillaahi doo musaaka su fekkonte ni ba mu feeñee jamono la moo ko doon alxuraan tàmbalee bind ba mu feeñee ba am juróom-ñaar fukk ak juróom ku da tëjoon nitu nit juróom-ñaar fukk ak juróom ci néeg bu jógee dafa lekki mbaa mu jàppi mbaa mu gëmmentu nelaw bu jógee dellu di bind du taarif un dixième ci li fi sëñ Tuubaa taalif nee na karaamati xatu ya di sama miracle mooy sama bis bu yàlla sàkk nga gis xës xoolal sëñ Touba ba mu fi jógee léegi 1927 la te saa yoo demee Touba da Touba da ngay dem ci daa jaaykat téere yi ne am ngeen téere bu yees ñu wan la téere bu yees ba nëgeen dafa mel sëñ Touba dafa fatu di bind di génn ñuy móol loolu miracle la. <laughs> ñu dem ba wutal ko bis. waaw nga xool lim fi sa ci dëkk. Mhm. lim fi leeral ci bayaal. Mhm. lim fi seexal ci góor lim fi résoudre ci problème ak ñi fi naan sëñ tubaa nee na ma ak lim fi bind bi mu sosee yoonu Mouride ca Mbàkke Kajoor yeesalaat dekk ba jox ko baayam sëñ Ibra Mbàkke Kajoor dafa ñew daru Salaam Mbàkke bi mu dikkee si Mbàkke Bawol mhm. fekk fa ci and ak cheikh Ibra Faal ak mag ñu bax ñoñe mu andalon mouride tambali nak di sikar di xif di mar di jang xassay di liggey te duñ wacc di nan ndox mu tang duñ dam duñu de dara du len dal di daw ci seigne sakka yi ak ci garab yi di sikar te dara du len dal bi mu fekk fa ay bok te mbacke mbacke dekk bo xamni mom ñepp ko bok mhm. te sëñ bi xam nga borom suuratul ijtimaiyatun la bu rafet teggin yi ak yar yi dafa nekk ca jëmmam ja mhm. te dëkk bii moom ñëpp a ko bokk te ñii mu àndal dikke nañu mbir moo xam ne mii xewagul fii mhm. te mënu koo imposé kenn te Cheikh Ibra Fall mii mu àndal nangootul ku bind ci daay sëñ Bamba nangootul ku dugg ci néega ba ki dàll mhm. nangootul ku nuyoo naam wala labbayka nangootul ku jox sëñ waa benn loxo ber na ko ber na ko te bakkanam la ci teg <laughs> sëñ bi dal di xamne toxutel kenn mo gëna a yomb toxutel mboro dafa dal di dajale bokk yëpp mom Serigne Touba ne Ibra Fall moko moma ba moma jàpp te nit ci lim jàpp la mëna bàyyi way liko jàpp mënu ko bàyyi dal di toxo mbakk ba won dem ci daru salam moy tawb daru yi mom la ci am ci dëkk bu momal bopam bam fa tege tànkam dafa ni amin bi daril fata touba li maskani hi daru salam kama bil makka wal madina way neena ñaari at yam fa am jëm ñetti at fa saati taarixu ila darihi ka taarixu ila suhi dafa mujj yoon wu jógee Mbàkke jëm Daaru Salaam mel ni yoon wu jëm marché. rajulun fa rajulun daarun fa daarun xariyatun fa xariyatun. tey ñu koy baagante baagante rek. fa minhum man yu'ti li hadaaya wa minhum man yatlubul ilma wa minhum yastalim. ñii di jébbalu si ñii di joxe adiya ñii di denc kumpa si. foofa xumb lool sëñ Tuubaa toppati guddi. sanc Tuubaa sax na fa ab diir kenn xamul fu mu nekk mag ñëpp di ko wër. sëñ mënu ba tey boppam di wër fee Cheikh Ibra Fall tey boppam di wër fee ba sëñ tubaab gis buubu ja rëbb boobee ci ni nga xamee xisa bi mhm. ni ko demal ca sama daaru salaam nga seetal ma fa ndongo ca sama frère ku yox ma Samba Diop Samb soo ko gisee nga indi ko fii te bu leen kenn yëg buubu ja daal dikk daaru salaam daal laaj sëñ Masamba Diop mu ni ko ah man de gis naa koo xam ne kii dafa may laaj loo ko ma Masamba Diop mu ni ko nu mel mu ni ko jëmm ju tuuti la ma nga laxasu ba tu ay kaaralee ko ci ndigam la ba dara ko ma ma nga ci àll ba yorul dara ab téere ma nga ci taatu garab waaye jëmm ju mel nanga misaal ko rek mu daal di daanu ko sëñ Bamba góor mu ne ko nee na nga topp ci man ma woon la fa mu nekk booba amul ay repère waaye garab yi mu doon damm di ko teg loo xam ne fii jaar na fi mhm. ba gis sëñ Tuubaa bi mu dikkee moom sëñ ma Sàmba Jóob Sàmm mhm. fekk sëñ Tuubaa daal loolu ama wasasin la ama wasasin atum junni ak ñetti téeméer ak juróom benn at ca gàddaay gaag booba wala muy 1888 sëñ tubaa ni ko masamba jóob mu ni ko mbàkke mu ni ko anab baa daaru salaam mu ni ko ñanga fa ñëpp a ngi lay wër kenn xamul foo ne mu ni ko masamba jóob mu ni ko mbàkke mu ko mala ni la wuti ab wuti ay wulli len mok nga def ma anda ak yow ren màkkatal mu karama siyaare ji ma dent mun a war a at moomee dem makatan mu karama siyaare yonti mu ko dem naa kajoor wut naa fa ay buus wulli leen ba ñu mokk ci ma nga daaru salaam déglu sa ndigal ni ko masamba jóob mu ni ko mu ne ko yoon woowee ma bëggoon a ànd ak yow ngant tabbi na ca kama woo woon foofee yàkkamti na ma ba far na ma gàttandu si fii nga ma fekk tey loolu la sëñ Tuubaa wax yonent bi alayhi salaatu ma gàttandu mu ne ko Mbàkke mu ne ko ndax xam nga fii nga ma fekk mooy fan sëñ Masamba Diop daal di jéer jéer mooy xool ci kaw téen xool xool gisul ab àllak mhm. ab dédd bu ñuy taras ay picc yu sab dara néew fa ak basang sax sëñ bi amu ko te mu ne ko mbàkke fii de xaw ma ko mu ne ko fii mooy Touba teg ca ne xarasaha laahu taala min kulli makruhin wa maqufin bi jaahi man haajara alqailu ilayha li ihyaai sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam ma sàmba Jóob mu ne ko mbàkke mu ne ko gis nga fii nga ma fekk digganteem ak fee yàlla y faye jaam ñi bu ëllëgee dox xaju fi war xaju fi tey ma sàmba Jóob mu ne ko mbàkke mu ne ko lépp loo déggati ci àdduna muy lu baax fii ko tax a jóg feeg yëg seegul banque wuli tànkam fii la adduna yi mujj fii la lislaam di mujj fii la alxuraan di mujj fii la dëgg di mujj fii mooy Touba. walaay wax na ba mu koy wax loolee dëgg mën na ko waaye tey jii bu dellu si waatoon. ilaa jàkkaarloog jumaam ji ak sororom yi. wallaahi ak dëkkam bii. wallaahi ak lenn lislaam lu ne ñu wutal ko fa maarifa. sëñ Touba ay waxam xar-xarub doj la du fanaan àll. ñu daal di leeral dëkk ba sëñ Touba dëkk fa juróom-benni at. aj googee mu naroon te yàlla gàllankoor ko. موم لا واخني وهو الذي هيق جسمي عن زيارته لكن لساني له كالخلب زوار دالدي اورغانيزي بوبام نك موم سيغ توبا اورغانيزي جيمم ساك توبا اي مشاكير ساك فا اي كير دك فا دكل اك جابوتام شيخ ييب دك موي جانغالي دي تاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يور موي دوخ دي دفار نيبل جي دوخ با اما بايس شين نك دي نين فك اتام يو مانك نيتي وير كي لا غيس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان زهر الخيبي bi jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu dul kiiraay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko loola koor la ba tey ci jàkkay daaru xudóos joojee sëñ nga xamni ni bañ koy gas denc borom tubaaya ak téeréem yaag ni lépp ca génne foofee fa la gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni ko dama laa andil si xat bu ak qutbaaniyatu donn loola sama bopp wiraasatan kaamilatan sirran wa alaaniyatan fil ummati wa diini sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ni ko sama lii de bëgg naa ko lool dama doon laaj ak qutbaaniyatu ñaata at lay am ci nit ñaata at lay am ak nit mu ak qutbaaniyatu nag téeméeri at lay am saa yu ko amee daal di jeex garanti ba jeex assurance ba jeex mu taxoo ci loxoy kooku dem ci keneen sëñ tubaa ni ko li ma bëgg mooy lu dootul jeex wahab li aziman fadli wal fadlu li abqi lay defal nag ko waaw mu ne ko loolu nag doonahu bay u dimaa daanaka mu xaal la jomb na ndax ku ma mas a feeñoo nii ma la feeñoo lii lay bëgg waaye la ko koy may su ma ko tegee suñ demul ba dimbali ko sax lam yoroon da koy ñàkk te yow bugguma nga nga yàqule ndax cofeel gi nga ma sopp ak li nga ma tag ni mu toll ak sa ak der bii nga yor ak sa jom may ak la sa mu rek wax la la yàlla waxon musa muy fa xusmaaka aatitu ko kun min shakirin sëñ Tuubaa ni ko fa bima shitu chitu fiir daaka axtabir nii faxtiyaari maa kaana fiir daaka ni yonti bi bu ma yërëm dimbali ma way bu ma yërëm sa dom boko nare jariñ do ko yërëm sa talib boko nare jariñ do ko yërëm sa soxna bu la nare jariñ do ko jom yonti bi ni ko ah duma la ci dimbalee dara de muniko ndok muniko bo mu lo ko dang dawee loo amoon danga ko ñàkk mu ni ko ndokk nangu mu jaayanteeg moom foofee muy tukkeem bi nga xamni moko moo ak ñepp nak nag. daa dëgg maa ngi dégg wax na mission bi metti yeeg naqar yeeg jafe-jafe ñi ci ne. Mm-hmm. wax na ko lépp. moo ko nettalil boppam. ni ko itam. Mm-hmm. dañ lay gaseeg sa noonu jamono. ñuy soppandi ko sa jëmm ji lu leen sopp te doo wonk doo raf doo daw. ba noppi itam nag ak ay yeneen mu baaxaat. yoo xam ne ni dafa naturel ci dundu doom aadama. da nga koy bàyyi lu mel ni geesu. lu mel ni wokkutu. du ko def déedéet du ko def. du geesu du wokkutu. déedéet doo geesu doo wokkutu doo faxas lu lay mat wala lu lay dox. allahu akbar doo fab sa doom. dootoo bànneexu si sa moo tax sëriñ Modou Moustapha Mbacké ak sëriñ Fallou Mbacké mas nañoo jub sëñ euh, mas nañoo ñëw fi sëñ Touba siyaar si ko mm-hmm. bañ ko siyaaree bay dem sëñ Touba leen toog leen ñu toog mun leen xool ba yàgg mu ne yéen ñii sax de na ngeen ma baal àq seex xam nga naka njëkk ay teggi dafa yàgg ci yoonu mu mm-hmm. sëñ Modou Moussa ni ko ah, Mbacké nun de wax dëgg yàlla loolu dé dé déggunu déggunu ko xamunu loo jubloo wax mu ne ko dama ni ngeen baal àq sax ndax doom ju dafa am àq ci waajuram àqi sopp ko ak toppatoo ko te yéen àq jooju xañ naa leen ko mu bëgg leen xamal leen bëgguma leen te taluma leen mais quelle audace quelle témérité jàkkaarloog sa doom joojur mm-hmm. ni ko bëgguma leen te taluma leen moom ku bëgg ku mu tal ما حد ما حبيت المختار سيدنا بالمقاليه بالمقالي والمقالي والاهلي والله, والله. رسول الله دونغ لا بغ ني تيوفير جي ما ام تي يونت نك سما خول ما دليت بغ مبا وا مبا اي دو صلى الله عليه وسلم بمن بحبه نسيت الليلى وذهبا وفدة وخيلا على الذي لقاؤه احب لي من ذهب وفدة وابلي سنتواني انا بغتوما كين بغتوما دارا لو نكو مسا جوخ تيغال فوفو لاي واخ alal ji daan bari lool ci suuf da daan tere ku ko gàddu ku ko garde di ko suul itam biñ ko nee lu tax yow mhm. naar bi ni ko lu tax sa tong yi di bay mbay leew lool ak a yaxantu mu leew lool te luñ la jox nga ni tegal foofu te doo ko laaj sa xaalis doo ko laal doo laal dara benn madisul an yaa benn matériel luy matérialisme doo ko laaj sa loxo sëñ tubaan damaa am li ma bëgg ku am loo bëgg doyatoo dara dara ndax alal ak yooyu yëpp fatt bunt rek la te amatuma ben buntu beugatuma dara u'titu hubbul mustafa wa aktafi bi zaaka fal muta kafaafan yaktafi seigne touba nee yàlla wërsëgal dama ak tofeel fi rasulullah mu doyma kuñ kuñ doxatul doy doy loko motax sukhratul tax suxlaatul dara la muni seigne mourou mustafa Moustapha beuguma len taluma len yonent bi ni ko da ngay génn dëkk bi di Touba ndax fa ya ko aar ci ma dabul faw zeyni wachel ilahi maskani Touba abad misla smiha bi jaay xëyri man abad dara la naqar du la fekk aw lor du la fekk ay noon du la fekk bekkoor du la fekk kon nag da koy génn sëñ Tuubaa bu ma waree génn damaa nekk ci lextikaaf ñu jaayante foofee loolee mooy yoonu géej gi léegi nag sëñ Boussa euh, xam naa téléspectateurs yi ñëw ñëpp ñu ngi xerewlu nag bëgg xam yoonu géej ga daañ ci ñëwaat léegi dañuy dellu alaaj Pape Cheikh incha allahu taala xam naa après Oustaz Assane moom itam am na ay question yu mu la war a laaj waaye ñu taxawandi uh-huh. buñ dellu siwaatee ci yow nag uh-huh. ñu départ nag jëm ci yoonu géej gi ndax kenn du ci doyal euh, uh-huh. ndax jaariñu sëriñ bi ak dellu sim nga sëriñ bi saa dellu si ak ñun alaaj Pape loolu sax laa bëggoon ñu def ndax euh, euh, comme émission bi dañu ko calcul tey hmm. te ci calcul bi ñaareelu xaaj bi itam des na hmm. ñu ngi ci waaj àndal ak ki xamee ni moo di Serigne Cheikh Saad bu Touré Mm-hmm. Euh, euh, ci euh, côté bi am na yu ñu bëgg a laaj. Mm-hmm. très rapidement. Mm-hmm. jël tuuti ci ay commentaires yoo xamante ni mu ngi jóge ci ay ndaw. yu ñu koy bind ci internet bi jagleel ko suñu suñu waajur bile. di Cheikh Bouchra sàmb ñu ngi jot itam ay yóbbante yoo xamee ni mu ngi jóge ci ay mbokk taalibe yu bëgg lool ci jotaay bi waaye bëgg ci gis Cheikh Bouchra Serigne Bouchra ci jotaay bi. voilà. Euh, loolu euh, ñu ngi euh, ci bég bokk na ci Cheikh Tall Dioum Cheikh Tall Dioum mu ngi mu ngi mu bég ba ñu tàmbalee ba tey dafa dajale njabootam yëpp di seetaan jotaay bile mu ngi bég léegi la yónnee addiya bu toll ci téeméeri junni mu ne def na ko ci guddi gi ngir sa jëmm ji waaw ma ne ko yow de Euh, li ñu dal ñun ñëpp tey moo la dal ndax ñun ñëppay xuccu xëccoo sëñ sëñ sëñ Bouchra bëgguñu mu jeexal waaye comme calcul lañu ko def ci programme faaw rek ñu respecté ni ñu ko faram-fàccee donc moom ñu ngi koy gërëm bu baax euh, Cheikh jum ak njabootam ci euh, taxawaay bi ak doom ji bàcc Dioum Keifa mi nga xamante ni Euh, mu ngi jàpp bu baax ci euh, liggéey yëpp quartier général donc Oustaz Assane balaa ñuy jox du Ndiaye ak euh, Mamek faati ak Bijou ba El Hadj Man Mbaye Garmi di joxe kaddu yu am solo ñu bàyyi la nga am loo laaj sëñ bi jërëjëf El Hadj Baye jërëjëf Cheikh Bouchra mm. si xam-xam bu rafet bi waaye itam ak pédagogie bi nga xamante ni fa tabarakallahu mag ndaw képp ka nga xamante ni comme ni ko mhm. oustaz Pape Pape Hann waxee lu na mhm. rek yaakaar naa tey dégg na si Cheikhul Xadim mhm. radiallahu taala anhu suñu maam jooju nga xam ne ngëneelul suñu borom la subhanahu wa taala mu baaxe ñu ko ñun fii Sénégal euh, oustaz Pape Hann wax na ko léegi